pël bu rafet mu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen comme ni ma koy defee saa su nekk rek ñëw caaroy seet si ndaanaan champion muy Coly Faye numéro 2 tarkindaa bu ñuul mu doon jonganteel ki nga xamante ne mooy caatu Daouda Fall yàlla xañ ko may ki nga xamante ne mooy caat ñu ñëw fas yéene waxtaan moom ci euh, li nga xamante ne mooy préparation combat bi ak jafe-jafe yi mu si jànkonteel dañoo for ci wéw bi mais nag tungu ne du teew ñuy nataal Coly ginnaaw bi ma la encouragé maa ngi leen nuyu di la ziar waaw maa ngi lay way bismillah alhamdulilah yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla jërëjëf Serigne Touba gërëm sama waajur maa la ziar bu baax di nuyu caare di caare jàmm gën lan sar di sëg ma dëkk di nuyu ñëpp di nuyu waa Gambi waa il il bi Jongwaar Palmarin fépp daal waa ñoo joore ñëpp maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp di gërëm ñëpp nuyu sama xarit yi ma nekkal ñëpp Hmm. macha allah Coly ñu gis ne euh, sa dernier combat sorti neexut rawatina bu démb bi euh, ñu gis ne combat bi jëloon nga ko au sérieux par rapport ak li fi jóge nga gën a jël combat bi au sérieux sa diggante ak Thiat ngeen xas-xas loo ca Gambie ñëwaat Sénégal euh, lépp ci combat préparation bi tey dañuy ñëw si sa diggante ak Thiat Daouda Fall ginnaaw bi nga jógee ci Ada nga ñëw ci ki nga xamante ne mooy caat lan moo tax nga dugg géejawaay jël caat li nga rëccoon fee moom nga bëggoon a rectifier wala lan moo waral jël bi wala say adversaire yi nga war a bëre ñoo la nanguwul woon jël loolu moo waraloon jël. non tolof tolof la rek tolof tolof moo ñu boole woon ak moom rek. Hmm. war laa moo tuddee noonu. laa may saa amul maas. Hmm. dabante rek. loolu moo waral suñu combat man ak moom. Hmm. mais ma ci sant yàlla bu baax di ko félicité yoon làmb di ma koy ñaan yàlla ko ndaw lu jik boo amaatee combat képp koo xam ne bokkul suñu zone bi yàlla suñu borom defal ko si jàmm rek waaw di wax ne la ndaanaan la nangu naa ko am léegi ñëw ci préparation bi ci combat bi Coly Faye euh, gars yi ne avant muy dem stade dafa am lu mu doon nëbb lan lan la Coly Faye doon dama am blessure du ndaw rek question nëbb ñoo nekkal ñëpp xam waaw mais nëbb ma ko def blessure bi fan la mu ngi sama gémmiñ sama tuñ moo xar. lu xar sa tuñ bi. contact mercredi laa gaañu mercredi laa gaañu contact sama tuñ bi xar après ñu ñëw ko. waaw mercredi laa gaañu ñëw ko mercredi si guddi jour yi ma def waaye dafa res. dinaa bëri demee démb dama si gaañu wax ci biir làmb yi. sans bi su première action man ak moom mais après arbitre bi mënu koo gis quoi parce que maa ngi koy nëbb maa ngi koy matt di dugal sama tuñ bi si biir. loolu yëpp yow làmb ji jaraloon na la ko. ah mais c'est normal. xaw ma jar wax parce que avance jàmbur laa lekk parce que gi ma dëgg gor la man tamit gor laa man bu ma sama waroon góor dama yëf ci dara. maanaam li la dal du caat moo la ko def. non non doo moo ko def. loo indaale stade la. waaw lu ma indaale stade la. mais arbitre yi est-ce que xool nañ la. non gis ñu arbitre ñu ko gis. loolu ngeen di làmb noonu bu ñuy làmb bëri ndax ratax ngeen wala ratax ngeen. bu dul arbitre ni ma ko def ku dul arbitre mën koo gis séantal image bi ma xool mbaa nga xool mën na ko gis ndax dafa damay wàllu këriñ gu bari këriñ dëbb ko moom moo ko laa ko si man sax nga war a si laa ko tax waaw léegi engrais boo gisee da ngay jàpp ne la quoi léegi góom bi doo gis mhm. mais après dama dama gaañuwaat ci biir combat bi nag ñëw bi teebee ko mais bu ma fi jugee hôpital dama doon bu dem ñëwaat ko sax mais ma loolu sant yàlla rek mhm. lu metti moom góor lay daal ñun ay góor lañ man li ma gën a metti sama àdduna man dootuma am metti sama àdduna sama àdduna benn metti laa ci mooy sama loolu mooy sama metti mhm. dootuma am beneen metti bu gën boobu Coly ñëw di bëre ki nga xamante ne mooy euh, Thiat mais wane nga fa jàmbaar mu wane fa jàmbaar euh, combat bi bëri ngeen ba benn moment nga palaake ko pour mu génn saako mais yow yaa ñëwaat ci combat bi arbitre sifflé na seen liggéey. waaw arbitre sifflé na moom ñu bëri ma sànni ko góos mu esquive ñu fa sawaat ma sànni ko góos dóor ma ñu jaabante ma daw plaqué mais ma ko plaqué sànq war ma ko woon dawale man heure laa jàpp moom laa def ma ko waroon biij su ma ko plaqué laa ko waroon waaw mais waruma ko ma ko dawale moo tax mu après moom am résistance mais foofu dama ko dama ko plaqué rek biij ko mais parce que échange boobu man yaakamte naa ñu tàqal ko man ak moom échange maa loolu mu ma ku ma ko waxul mën a koo moo ko man ak moom mais ma ko fu ma ko def moo ko mos a def ñàkk nga fu ma ko àgg fi ma ko téye fu ma taxaw ko waroon daan dama ko waroon delloo rek mais dama damaa daw ak moom mais dañoo gis ne da nga ñëw gën a vocaliser wu ci xeex bi xeex lañ la yebee pour nga ñëw xeex ak moom da nga xeex ba fàtt ci suuf yow ci kaw gi di nga gis. non combat bi moom dëgg yàlla kenn waxuma defoon nii. sa xalaat bopp parce que sama xalaat bopp ak man ak li ma entraîné ñëpp man maa leen ngir yàlla combat bi ne ma ñëpp bàyyi moom concession boobu te jàppoon te booy nekkul nekkul koo xam da nga ñëw jàpp ko daan ko daan fa nga yóbbu xel bi loo ko war a soog ko ko te ko wàññee gis naa ni sax wàññee na bu baax mais échange ak douleur bi ma nekkee ba pare fi mu kal sama tànk genre man erreur ma jaar moom laa def mais mooy ma jël ko fa laaj ko foofu ma dawee jël ko dawale ko boobu genre war ma ko woon dawale. waroon bii fi ma taxaw dama ko dama ko waroon bii rek na ma bëgg mais instant yooyu boobu waaw bi instant mu tàqal ko moom rek gis hmm. ba pare tam boo gisee may jékki-jékki di ko song bëgguma ci gi arbitre bi di gis suma góom bi moo tax moo bu ñu xeexee une rek damay daw jël man maay man maay man maay war a provoqué sëgg parce que parce que su ma siggee rek arbitre damay gis ba bu waalee yàq combat bi. mais takkoon nga prothèse. non dernier moment takk ma prothèse moom mais commencement bi arbitre soo ko sifflé tax naa war mais saa ma ko dawalee ba ma waaw par exemple mën na ma soog prothèse waaw. ci euh, tolof tolof yi nit doomu aadama ak tolof ndax tey am na ñu la fi gën a doon champion tegle nañ ay défaite am na ñoo xamante ne ñoo la gën a nekk xale am na ñoo xam ne ñoo la mag tegle nañ fi ay défaite ay six défaite tegle ko ñaanaluñ la ko nag ñu ñëw un jour ñu génn si yan tolof tolof la Coly Faye di bëriwaale jamono ci ci wàllu bëri. tolof tolof xanaa jàpp la kese. mooy tolof tolof mooy jafe-jafe yi. ah man loolu laa jàpp man sama ko de. jafe-jafe yi lan moo ko waral. ah xanaa ñàkk jàppale comme sama mbër yi leen ko loxo ñàkk mu ko teg loxo rek. jàppoo ne parce que man sama même combat maa demal sama bopp lépp à part ci tëgg rek lan la commencé loolu fan nga commencé sentir loolu si sa carrière yi foo commencé sentir ma daanoo si Arafas laa commencé sentir loolu mais sama làmb moom dëgg yàlla daana neex te daa ma manqué dara hmm. depuis ma jógee si Arafas ba léegi su may voyage sax ci bii si laay yëg barke yàlla su may dem si àll bi léeg-léeg yenn saa yi par yenn saa yi nii mais gars bu ñu ngeen maa moom dañ may jox oto mais man maa mu ni mënoo di ko topp su ju su mu ne defal bu yàggee sa yaram am kerte ku mel ni ci ak rek ñoom fu ma yëgee may voyage dañ ciy def lu ñu mën dañuy fexe foofu moom dem voyage mais dama bëgg di leen sonal chaque jour voyage bari damay yoxo si dem xëy fa yat maag sama leen xanaa mun leen xanaa mun kon da ngay confirmer li ñuy wax naan euh, Sénégal xamuñu sport kuy daan rek lañ xam moom dëgg fa yàlla man man moom gëm naa loolu moom. dund ah, naa ko quoi. mais ñii moom ñi nga ma gis ma nekkal nii nga mbër mi da ngay am ay supporter am ay fan club man amoo fan club man ñii sama ay frère la am ñii ma daan ak ma lañ yemale. fii heure boobu ñëwee toujours fii nii lay mel ma am combat ma ñàkk am combat. ñii say déret lañ ñii samay déret lañ. Mm-hmm. moo tax mën nañoo dem bàyyi ma leen dem bàyyi leen sans ñoom du ma dem ku ma xam ñi ñoo nañu xam ma depuis Mbapat ba léegi mën na kon ma jaajëfal la rek kontaanee la ma bàyyi la ak suñu mbokki internet yi nga gërëm ku la neex sant ku la saf. waaw man sant sama gars ko sant di ko si man sant Seydioum sama xarit ak Momo Ngom Daga Abdou ñu gën nga xam si Daga bu baax maa ngoor Morone ziar Cheikh bu ñuul wi limaan maam Baka sama gars yi. Hmm? di sant ñëpp mu limu rek xam naa waa ji ay jaxate ara Oussou Bébé Tafa Dia ay ñoom Fallou sama gars yi ñëpp ay papa ak mag xadd Sa Thiès bu ngangu ne ma ko ñaanal yàlla suñu borom ko combat mi jëm yàlla suñu borom ma si ndam moo boyloo ak brise mer rek rek surtout Abou Ndiaye képp ku am ñu la ñaanal yàlla suñu ma may la ndam di woo ñëpp képp ku yor course di ñaanal ñaanal surtout dimanche yàlla suñu borom may ko ndam si combat bi mu jëm waaw incha di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñoo bokk ci côté papa ñoo bokk ci côté yaay ñëpp mënuma lim bàyyi ci ñëpp gërëm ñëpp di la sant yow Paul di sant Makan ak sa ñaari caméraman di leen ziar bu baax. jaajëf ayca mbokk yi jërë ngeen jëf noonu lañ koy defee rek saa su nekk di ko encouragé di félicité ki nga xamante ne mooy caatu daaw dafaar dina wax ne ko làmb la ndam li génnu Sénégal ñaari xale yi doon jongante la bés boo gis day am ko yàlla àndal wanewuñ fa yaafus wanewuñ ñàkk jom yàlla ak dogalam la di leen wax merci beaucoup ba ci yeneen jotaay wala boog yeneen daanaan wala yeneen champion jaa ngeen